nee la cas bi fii lañ koy traité cas bi mooy lan mooy cas bi nga xamante ne bi moom moo dox euh, ci diggante ki nga xamante ne moom moo di Papa Ndoye mi nga xamante ne moom acteur la te joué woon euh, li nga xamante ne bi mooy série Goro bu bon moom ak ki nga xamante ne moom moo di Amina euh, bi nga xamante ne bi moom moo nekkoon ci série bi nga xamante ne bi moom moo di famille sénégalaise mbokk yi ñoom ñaar tey ñoo xëyee li nga xam te moom moo di internet bi on peut dire sax que ki nga xam te moom moo di Pape Ndoye moo def euh, sorti fi nga xam te moom moo di euh, actu ko waral nag mooy que ne nee na moom ki nga xamante moom moo di Amina dafa yore li nga xam te doomam te bu deful woon sorti peut-être Amina mën naa Euh, euh, yóbbu doom ji wala mu sàkkal ko pexe moom nag li waral sortie bi nga xam te moom la def tey mooy que ne pour Amina euh, jox ko li nga xam te moom moo di doomam parce que nee na mook Amina dañoo nekkoon ci relation bi ko tubaab bi di takk mbokki internet yi ci li Pape Ndoye wax nee na moom mi nga xamante ni moom moo di Amina nekkoon na ci benn relation avant tubaab bi di ko takk ndax sax moom sax bi ko tubaab bi di takk sax dafa nekkoon ci ëmb ba nekk trois mois maanaam ñetti weer ci la ko tubaab bi takkee moom Pape Ndoye moo ñu xamal ne ki nga xamante ni bi moom moo di Amina bu série sénégalaise euh, ñoom ñaar dafa am lu ñoo seqoon avant muy am jëkkër ci uh, tubaab bi moom sax nee na uh, moom sax ba mu gisee li nga xam te ni moom moo di mariage bi sax série la ko foogoon wala mu foogoon ne uh, affaire yi ay ay buzz la ñuy bëgg def waaye ci la gisee ne internet bi yëpp di ko di ko ŋawte ŋawtee moo xam ne lii nag euh, dëgg la te nee na moom du ko bàyyee noonu ndax ki nga xam te moom moo di euh, Amina li mu doom ji mu yor nii du tubaab bi moom moo ko jur waaye doomam la boo xamante ni bii bi mu koy bi ko tubaab bi takk dafa ëmboon doom jooju noonu doom ji nekkoon ci ñetti weer mbokki internet ginnaaw loolu ba mu defee sorti boobu am lu ko metti lool ba sa sorti ba sax mu si tuur li nga xamante ne bi moom moo di ay xewal mbokki internet yi mi ngi noonu saa su nekk seen mbégte su suñu bànneex dem xoole ki nga xamante ne moom moo di Amina famille sénégalaise moom itam mu daal ñuy wax li nga xamante ne bi moom moo di version ci li nga xamante ne moom moo di li ko papandooy waxal ci doom joojee nga xamante ne bi nee na daf ko ëmboon trois mois avant muy def li nga xamante ne moom moo di mariage bi ak euh, tubaab bi bokk internet yi lu ci mënta am daal en tout cas Pape Ndoye ñu ngi koy jox ay commentaires yu négatif parce que nee na lii mu génnee ni waru ko woon a géntee doonte sax dëgg la waroon nañ koo mën a waxtaanee si seen biir mbokk internet ñu ngi leen di jaajëfal jox dig daje beneen yoon jërëjëf Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te